élection parce que dañ naan ko fa tek tamit mburu faf ko farine ki fu jógee keneen ku fu ñëw tamit même chose lay def Moi, waral ñu euh, ay abstention yu mel non am lolu c'est la raison principale de l'abstention c'est vrai je partage vraiment ce cette analyse mais ñu mel na ñi nga xamni comme nous, ko sur Mansour léegi sen C'est waxu sen wax taxul nga do sa dom hmm. des gens qui te disent man ken duma nommé par décret

arrogant. Je pèse mes mots. Très arrogant sur sa fortune face à malheur, difficultés des Sénégalais. Très arrogant vis-à-vis du peuple sénégalais, de Nan, vous n'êtes pas digne de confiance. Vous l'avez entendu. Hum, à Athiès. Hum. Vous avez vu un leader très arrogant, vous voyez comment elle a rabroué vos confrères. J'ai vu un euh, leader impulsif. impulsif. Il nga à Thiès Bon, mu l'histoire de muy wax Sonko. Mm-hmm. il nga nu bib geste violent regardez les images. Mm-hmm. Bitemet pareil. impulsif. arrogant envers son père spirituel le <laughs> président Le hein? président Ouad, l'homme a des défauts. Mm-hmm. il faut le respecter. Ouais koo xam ne lépp loo am moo tax nga am ko c'est la payal say études nga dëkk dans treizième arrondissement même chambre Ousmane Gom je connais l'histoire mhm. nga jëw tey di naan qu'il aille se faire voir je mets les guillemets naan yëngal aras mais attends ah, ça... je me demande est-ce qu'il n'a pas un problème psychopathologique ce monsieur <laughs> ils sont conjugués au passé ñooñu ñoo énervé les sénégalais bi ñuy naan bu ñu voté ñooñu su leen di parce que la langue mielleuse ne bâtit pas un pays mais nooy les euh, parrainage

xalam demoon na bay neex. bu nga teg. comme tëdd maa ko dag <laughs> yaa fi la troisième mandat tëdd maa ko dag. <laughs> yaa fi tudd troisième mandat de. def naa au Sénégal. Uh-huh. le peu que j'ai fait. mais zone bu nekk Sénégal gis na sama liggéey. ma yóbbul leen foofu les bus. des des désenclaver des zones. leur permettre de voyager climatisé sécurisé à temps. Uh-huh. jël doomu Sénégal yi jox leen liggéey dans toutes les zones du Sénégal boo duma jëluma waa Podor rek ah j'ai recruté 1705 CDI waxuma CDD. CDI CDI Je sénégalais Il te a pas de népotisme sinon mais maître maître normalement comme a euh, je vais vous dire une chose euh, très claire. Macky grand frère. il sait de quoi je parle quand je lui dis grand frère. Hmm. je suis pas quelqu'un qui est hmm. Macky Sall, fais comme tu me bëggoon na ma sax def ministre sur trois postes nous étions en compétition de souveraineté mhm. boobu ñu génn 2012 mais sama tempérament ne lui permet pas ma teg ma foofu mhm. parce que daa ma ne un mhm. ma dem deux loolu Sénégal yi xam nañ ko te dama koy teg ci yoon da ngay politiser man ma def loi li ma ne bul téye nit ma dem jëli ko bu ñu ko waree jël dañu koy jëli loolu moo mais j'ai considéré que nit mën am njëriñ ci askanam ci réewam Mmh. station buñ ko mën ti ñu jël ma je n'ai jamais eu de diplôme en transport. Mmh. ñu indi ma teg ma ci transport. ne ko vous verrez def y a des imperfections certes parce que mmh. rien n'est parfait dans ce monde mais je suis très satisfait du travail que je fais mais je dis reviens au parrainage. bu fekkee ñi nga xam ne ñoo yore nguur gi pour ñoom seen parrainage dafa yomb. neel yaa financement ñëpp une seen garantie. 40, yi de jël recto verso def déjà ce mm-hmm. demal ci kaw gi nga financement ñeppay ñew indi nga financement francs mm-hmm. ko mais bi jël ni ko recto au port ne eh, recruter personnes yi parce que liggéey dafa jël de 9500, tous les 3 <laughs> jours par semaine euh, man préféré anticiper mm-hmm aujourd'hui je, je suis très avancé dessus. en 2012 bu ma bu ma nga bëggoon ci élection présidentielle yi euh, ginnaaw bi nga tegaat ko ci suuf euh, ànd ak Macky c'est ça. Mhm. est-ce que tey jii nii fi ñu jëm mënuñu xaaraat loolu. lépp mën a de. je pense que soo jëndee 12 ans c'est mon âge da nga naan mais il était très jeune en 2012 mais 2012 xaw on a dëkk bi de. Mhm. ci dëgg. mais fële mon président Macky Sall seen kenn présenté ma ko dafa dégg may wax au grand jury avec Mamoudou Ibra et Mamoudou Ibrakan dit vraiment, dans le piège ici, mais à vous entendre parler, on a envie d'applaudir parce que c'est le comment, comment, comment, vous avez répondu parfaitement. Pour le non, il dit, président Macky Quelles sont tes conditions Moi, aucune condition. C'est le Sénégal. Il y a peu compétence. Parce que moi, je suis en expérience, mhm. Tu es connu, je suis inconnu au bataillon. Je suis avocat à Paris, je suis modèle Je pense que ça va manquer. Nous avons un programme vision. Mm-hmm. sur 5 points les quatre mm-hmm. sans condition. Nous mm-hmm. toog nous gagnons. ma jëlaat samay bagage en 2014. Je jël c'est en 2014. je pense que je n'ai pas à féliciter le président Macky pour le fait que nous, d'un li askan bi c'est le peuple qui a dit président. nous

am na foo xam bari woon nga coow dinaa ci dellu saat bi nga mm-hmm. jëlee ay photo ak ay kiyam ak yooyu melokaanam marron beige boobu taf ko ci suñu enrit bi si itam mais Moussa loolu itam nag da nga alors euh, neex ma Sall ah. donc si benn côté bi mooy li nga wax léegi ñooñu la war a dem seeti seen ay mbir ku ànd ak nguur gi di wax lu leen neex gisuñu non fi fii am na ñu fi nekk bërki démb mm-hmm. sur facture sur facture fi yi C'est un beau frère, non 2 milliards 500 millions de surfacturation. Nous il diapos d'âge. Nous disons d'âge. D'âge, mais quand ordre Un d'âge n'agit pas seul. Nous avons ministère de l'Industrie, nous avons des de mon entreprise. Nous avons 100 millions par jour liquide pendant 24 jours. y a beaucoup ordinateur